xool nga loolu loolu def kër Madoune Fall gee ca wetu Mbaba garage moom lañ def biig euh, dañu leen a sàcc ñu topp leen ba jot leen pël yi ñoom ba gor waa jooju ba dagg ko au lieu que gars yi rey pël xana ñoom itam ñu door leen tuuti rek bàyyi leen ba fii ne pël yaa nga ña nga kees defe naa waaw ba ñu ko defee dégg naa ca fa hôpital ba euh, Samba Ndiobène ministère bi nekkan ministère de l'élevage dégg naa téléphoné na fa di laaj ba xam pël yi nu ñu def ak yooyu nga daal xam ni kon affaire bi doy na waar torop torop nga xam ni ñoom bañ jàppee pël yi dagguñu loxoy pël reyuñu leen defuñu leen dara xana dóor leen euh, xeex ak ñoom rek aussi bàyyi leen te en moins waral nañoo fexe ba ba rey pël ndax buñ gaawuloon waa jooju songoo woon ak bi pël